jërë jëf ci topp gi ñu topp ci biir réew mi ak ci bitim réew euh, kon euh, sunu gan agsi na sëñ Bisaan asalaamaaleykum nu bàyyi la nga nuyoon teg way seetaan yi jërëjëf kon ñuy nuyu ñëpp ñu ñuy teewlu ci Sénégal 7 TV amati mbégte c'est que yow jotaay ji alhamdulilah kon tey ñaata laaj nga indeek euh, loo indi waaw laaj yi bokk na ci toujours màggal gi Ah. donc ñetti fan moo dox suñu diggante ak moom mm-hmm. ay millions yi julli tamit ñu leen di xaar ca dëkk boobee de di Touba ngir ñu mm-hmm. wuy ji kon wooteeb Serigne Touba googee mm-hmm. tey lu ñu bëggoon rek mooy nga may ñu tuuti ci jëmm jooju mooy kan jërëjëf jëmm jooju mooy ginnaaw bi ñu la jaajëfale menn mag mu nekkoon ci réew mi bi muy feeñ ci réew mi yàlla def nit ñi daanañ jàng alxuraan waaye jàng ko pratiquer ko boole kook euh, éducation walla formation loolu am na lool bu bu fi nekkoon it xawoon naa manqué mu ñëw dox ci wàll googu di di yëgal nit ñi ne alxuraan dañ koy jàng dañ koy dégg dañ koy jëfe jëfe gi jural ñu ragal yàlla ak doylu jural ñu ragal yàlla ak maandu jural ñu ragal yàlla ak njub loolu nag bi mu ko tàmbalee nit ñi nag fàq di ko wut si tubaab bi tiit daal jàpp ne kii day dajale soldaar pour song ko léegi mu ñëw ne moom na ko jéem a song moom ñu daje ñoom ñaar ànd ba dem fu sori dellu siwaat loolu lépp moo leen mu moo jur tey bi mu demee ba dellu siwaat te mënuñ ci moom dara ñu de ñu bàyyi ko mu ñibbisi dellu si ci réew mi dem googa nag la ñuy màggal mooy bisu génnam ba jërëjëf ci laaj ba am wax nañ ko léegi ay millions doomu aadama la ñuy xaar foofee ca Touba. Mm-hmm. li leen fa yóbbu nag di ut ci ngëneel li mm-hmm. ñiy màggal yi ban taxawaay lañu ñu war a mën a am ngir jot ci ngëneel loolu ngëneel la waaye mooy rek mm-hmm. kii ñuy fekki nii mu woote ko de ab jaaruwaayam day jàngale jom bëgg xam-xam am fit ak doylu suñuy dem ñun tam ak dikk ñun tam ñu fexe ba am loolu su boobaa bu ñëw ñëw nga nii danañu topp ñu bañ a dem rek pour àgg xumbal mbooloo ma euh, lekk ca lekk ya waññeeku ñibbisi baax na de ndax lu gàtt gàtt dem nga waaye dem nag jële fa jikkoy jom jikkoy ngor jikkoy doylu jikkoy fit jikkoy njub loolu nag soo delsee ku defut noonu yaa koy ëpple mhm. la sëñ Saalum daan wax ne kuréyu kuréy raw la mhm. Mhm. jërëjëf kon dawalkatu oto yi tamit ñoom ñi nga xam ne nii ñoo yóbbu pèlerin yi lan nga leen di dénk wax nga la lu am solo ñooñu li ma leen dénk mooy ñu bañ ko def parafito pour barile nañ ko def pour barkelle est-ce que ba ñee màkk bu nuy jógee Màkka di dem Muna wala jóge Muna dem Arafa oto bu ne ñaari voyage lañ la may ñaari voyage képp lañ la may fii nag dangay gis ku bëgg a def Touba aller retour benn defaat ko ñaar defaat ko ñett bëgg ko def mu ñeenti yoon loolu ne xaju ci ndax mën ngaa bëri xaalis mais du barkeel yi ma leen kon mooy nan xool oto yi ba organes yi baax ñu xool kayit yi ba kayit yi baax ñu tege ci yoon wi yoonu yoonu yoonu autoroute péage nag xam nga da ngay tàllal rek bu sa moteur bokkut ci moteur yu baax yi man ngaa am problème ci yoon ñoom seen yooyu kon nag ñu laaxi biir ñiy dem fexe ba bu ñuy am ñu am waaye buñ jàppale ne daa war a bari kon nañ ko parafitoo loolu baaxut sëriñ Fallou de am na lu mu leen dénkoon itam waaw waaw njàngale mu rëy daa waxoon ne kuy dawal da nga naan nikk ne jàkk muy ñaar mikk mooy ni ngay téye direction bi jàkk mooy nga xool ci sa kanam mu ne bu ne yaay nga ne yoll bu ne tëj nga ne tekk mm-hmm. loolu la sëñ Fallou jàngale waaw jërëjëf kon ñu ñëw ci